sur l'anime bi. yéen kay da ngeen naan da ngeen ko yéen da ngeen naan non non yéen journaliste yi da di wax ne. Hmm. da ngeen di laabal seen da di waxal yàlla rek te yàlla tax. Hmm. ngeen génn ne yéen da ngeen a namm Sonko. bu ngeen génnee ne dangeen ko nam ñun dinañ waxtaan ak moom mu génn wax na journaliste yi seen bopp. dañoo namm Sonko yàlla xam ne da ngeen koo namm. mais pat pataar bi voilà gis nga. Euh, nee na pat. waaye yéen xam nga journal xam nga Sonko bi muy wax waxut ak yéen. journaliste yéen Sonko yoru seen communication waxut ak yéen waxalu leen. Sonko ñun lay waxal information bi. waa ñun lay waxal ñun waa Pastef lay waxal. du dëgg mm. Mm. ak sénégalais yi du ñooñu lay waxal. non pas waa Pastef sénégalais lay waxal. waaw d' accord boo ko yaatalee. sénégalais lay waxal. mais suñ communication la porté. que ce soit waa ñun suñ communication la porté. waa Benno tamit foofu junne fa coow boo war a Idriss Seck ñëpp jéppi ko fa. waa waa dara moom moo defee defam de xam nga moom moo ne ci Macky Sall la ndogo. mu ne si Sonko la moom moo ko waxal boppam. Hmm. def def conférence de presse boo xamante ni yow tey ji bu ñu la doon laaj. Euh, bii bi tax Idriss Seck doon def conférence de presse Fallou mënoo ko wax trois heures de temps ak magum jëm nga toog fa di wax di déliré. waaw dañ si tiré ñetti information bu njëkk ba. Euh, mooy euh, valider candidature bu Ousmane Sonko. ben bi moy nis def ni li nga xamné que modi di 3e mandat président Macky Sall. peut-être mhm. ñettel ba. Mhm. mooy moom àndu 3e candidature bi waaye déposé li nga xamné que modi candidature ñett information yi leen si war a mën est-ce que amna ci si Idriss si Seck wax mu la Idriss Seck dégg nga mu né man Idriss Seck je suis candidat à l'élection 2024 dégg nga ko. mais wax na ko indirectement. nee na chemin lolu nak xam nga yow xam nga xam nga nak ful la. xam nga yeen xam nga yéen seen ful la waron na ëpp loolu journaliste sen seen ful la waroon na ëpp loolu moom bu demee ba woote nit ñi ne dafay déclarer candidature mais na assumé wax ko wala. laaj nañ ko ko a. laaj. mais tontu si non bi daf ko ko laaj mu nappasaale. ok bi daf ko laaj mu énervé ne yow hmm. est xalaat nga. Hmm. élection am fi te Idriss Seck du si bokk ma wér. fekkee te du bokk. loolu noonu la ñuy déclarer euh, mais kii dé déclaré na Déthié Fall déclaré na candidature am. Hmm. Ousmane Sonko déclaré na candidature am lan lañ wax. Hmm. Hmm. je suis candidat à l' élection présidentielle deux mille vingt quatre na ko wax. mais journaliste bi moo ko ko waxaaleel man su ma ko waxoon fekkoon maay journaliste bi su ma waxoon ndax xalaat nga ko ma ne ko waaw xalaat naa ko. mais suspense bi lay gardé nag suspense. lan mooy suspense suspense yow yaa ngi ni yoroo dara sa bureau bi nga doon voté Thiès lañ lay dóor looy suspense bu suspense deux mille vingt romb ko di Idriss Seck dafa mu ñaareel bi nga ne mooy lan. benn bi mooy. Euh, de nag euh, valide na candidature bu Sonko. bu moom mooy validé à na ko duma nangu président Macky Sall dala ko xañ waaye euh, lu mën a am demal baalu ci. Ousmane Sonko non non ñu Idriss Seck taxal ma wax la. excuse nationale taxal ah. moom mooy valider suñ candidature. Ah. ndax suñ candidature li ko indi ba fii bokku mm. bokku ci. Mm. yëgu ko fekkeewu ko. Mm. te woowuñ ko pour mu dimba mu dimbale ñu suñ diggante ak Macky Sall kenn woowu ko na toog fi mu toog na def liñ de ñun ah. suñ diggante ak Macky Sall na lañ suñ bopp. mais seen candidature leeru ñu leen defal médiation. non non soxlawuñ ñun soxlawuñ médiation ñun suñ candidature du médiation moo koy jàllale ñun suñ candidature li koy jàllale xam nañ ko te ñu ngi ci loolu woowuñ ko si. xam nga loolu luñ la woowut tamit. mais donc léegi xew moo xam ne kenn woowu la. Ah. loo fay wuti. mais Idi dafay joué kan kan lay arbitre kan lay arbitre rek si côté Ousmane Sonko ak ñaari dossiers. Idrissa Seck mu mënta gérer parti mënta gérer réew Idrissa Seck réew mi mënu koo gérer tey ji parti réew mi yow su la laajoon ñaari kàngam yoo fa xamati du romb Idrissa ga Yankuba Diatara ñëpp dem nañ Idrissa mu mënta gérer parti réew mi mënta mën na gérer réew kii daa mën a gérer réew. est-ce que Macky du ko yóbbu 2024. kan loolu seen diggante la. de sama yoon nekkul ci diggante Idrissa ak Macky Sall. waaw protocole yi ñuy jokkalante euh, Akhenaton mi ngi insister ne moom si combat bi la boo faaw Sonko daal di koy leeral exactement. ban protocole ah protocole amna na si protocole moy jokolante rek ay cadeau jokolante lan Sonko lan lan lan. Ah, Akhenaton ma ñu expliquer euh, parce que euh, euh, ni ñu def écho que ni Bassirou Diomaye Faye fekkee na lu ñu mel est-ce que tamit loolu gënul tax selon quelques informations par rapport à son arrestation. man de lan. Sonko ñu ne Bassirou fekkee na lu ñu mel Bassirou Diomaye fay fekkee na fekkee na protocole wa wa depuis kaw Adji Sarr ba tey bëgguñu bàyyi Sonko mu wéet fu mu dem day and ak ay nit. fu mu dalal nit ñi dañ fay nekk. wa wa Euh, est-ce que tamit loolu justifié aussi euh, l'arrestation Bassirou Diomaye Faye léegi yéen Seck encore une fois ñu bëri ne hmm. du ñu lay waxal mais président Macky Sall peut-être lay waxal ni. Euh, man de man xam nga man xam nga man sama fulla dama yaakaar ne fulla war na weesu Idriss Seck mi toog. Hmm. mi toog war a wax li mu wax nit ñi ni war a wax li mu bëgg a wax nit ñi xam ko. laay mi laay wiir. non mu wax man ma am temps wu toog naan Idriss Seck est-ce que du lii la bëggoon a est-ce que du a hmm. loolu. bu fekkee ñeme nga li ngay def. mën nga li ngay def. Euh, am ngay micro am ngay écran da ngay toog nga wax nit ñi lu leer nit ñi dégg. benn franc parler la am ñëw. loolu du franc parler de. dafa am loo xamante ni. donc ñëw na def conférence am. daf confiance religieuse am wax jaajaram lépp fu meuna jaar mu ne mu ne alquran daf ne wazkur fil kitaabi idrisa innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafaanaahu makaanan aliya waxuma jàngul de xam nga kero wax tekil na la fi ne la al ilm wal huda xam-xam dafa nekkee nii njub nekkee ni du ben nit ki man nga am xam-xam te jubo man duma ko weddil jàng na de duma weddil kenn jàng na na raw donc lima meuna wax rek moy ci lim wax mu ne yàlla dafa dafa dafa dafa wax ne moom toomaayam dafa dëggu innahu kaana siddiqan nabiyya moom est-ce que dëggu na bu fekkee ne toomaayam dafa dëggu moom est-ce que dëggu na wa rafanahu makaanan aliya yàlla moo yëkkati toomaayam ba fu gën a kowe makaanan aliya ci place bi gën a kowe ci place yi moom est-ce que yëkkati nañ ko fa donc li muy wax moom moom ak Idriss yonte yàlla Idriss tul moo leen boole du ci jikko du ci leneen du ci jëfin bokkuñ leen bokkuñ dara jamono ji yëpp nag Sonko kenn déggatu ko fenn nekkatul à la une jamono jëpp Idi la ñuy dégg Idi ah, Idi même euh, c'est nous que tamit du jël seen bës bi soo leen toogee seen ñun soxlawuñ bës xam nga ñun Sonko li yor da koo ah, ji soxla ngeen ci popularité nag oustaz nag xam nga ñun ñun doxuñ ci ay ñun doxuñ ci de ñun dañuy liggéey di structuré di di di di di liggéey. Hmm. Sonko dafay xëy di liggéey ci parti bi bokkut ak ñii nga xamante ni dañuy xëy nekk ci ay protocole ci ay lijjanti ay dugg ki génn Sonko bu xëyee mu ngi xëy ci parti bi di liggéey di di classé gars di leen teg ci axe yi. Hmm. moo tax saa yoo gisee gars yi rocc kenn keneen dugg fii bu barke rasulillahi nañ nañ dem ci APR. nañ jàpp ci APR supposons ñoom ñoo yor nguur gi de. Hmm. mais ñu jàpp ci ñoom 500 militants. ak 30 cadres ñu xool. kan mooy toogate ci télé di wax doo ko amati mais Pastef tey buñ jàppaatoon yeneen cent wala yeneen 5000 da nga gis booy yi di génn di def barki démb seetaan nga maître nga moo toj moo toj réew mi seetaan nga ko si ngeen fanaan réew mi yëpp ci moom lañ fanaan boo ñëwee la Sonkoo yor ay booy yu jàng diine te ragal yàlla booy yu am xam-xam ci réew mi te mën koo régler. Eh, booy yooyu ñu ne d'accord ñu si gise bi de. ci gise ban. ban booy moo ko wax. Ah, fii amu ci kenn amu fi kenn waaw ñooñu am ku ko wax sax am nga liberté wax ko. Ah, mais ñun bu Sonko defee lañ d' accord ñun am nañ liberté xam nga ñun Sonko tënkuñu takkuñu. Ah, vous n' êtes pas parfait la Sonko parfait wuñ ñun parfait wuñ. te Sonko tënkuñu moomuñu takkuñu. Sonko bu defee lañ war a critiquer ñun mën nañ koo critiquer mais dafa am fu ñu koy critiquer du fi ci mbedd mi. Euh,

Mm-hmm. naa ñu kaay leen ba génn leen. waaw chaque jour déclaration loolu doon def. exactement euh, aussi euh, tay ñu gis ko defuko ko kenn xam exactement si lu mu ne. kaama wax la nag Sonko ci conteste lay dox ak stratégie. ok Sonko ci loolu lay dox. xanaa lu bees la. Pastef non Pastef ci loolu la mës a dox. Pastef ah keroog jàppuñ fi mars. Mm. jàpp si jour mars bi. Mm. si jour mars bi dem ba ay midi euh, waa ji Dakar. bokk moomeel bi xam préfet bi ne kenn du fi marché. ok deux heures de temps nga euh, seen ko France 24 ak RFI muy wax ñun ci ay conteste ay ak ay stratégie la ñuy dox ndax nit boo nekkee ci xeex da ngay xam naka ngay xeexee. Hmm. ñun dañ ki ñu jiital dafa xam naka lay xeexee su waree dóor ak dompot ak su waree waxtaan xam na fu mu koy defee du ñun ñoo koy jàngal ndax lim ñu woon daf ñoo doy lim ñu woon daf ñoo doy. Sonko dafa man bés su bésam jotee rek mu génn su bés bi jotee rek mu génn bu leen yàkkamti xam naa ne temps yi moom wax dëgg yàlla site yi doxut journaux yi marché wut. télé yi doxut ndax Idi mi ngi si site yi. Idi man yéen Idi. Idi wóor na yàlla xoolal Idi Idi mi ngi yàq xelu askan wi si lañ fa waxtaanee du ma leen ko wax loolu leen fa indi. <laughs> waaw loolu la bu fekkee loolu la ci jublu de yàqu xelu kenn yàquwul ndax man maa ngi ni sama xel tey xoolal bi mu ne bi dem na fa ma ne ah ok. léegi mais mais amoon nga xam na ne wallaay tiituma xam nga man. ko woon gëmoo leen ko woon. ne dëkkuma kër Sonko te xam bi ma la wax dama la wax lu leer. maanaam xam nga boo yàggee man boo yàggee di ma waxal lu duwul dëgg. ok boo xëyee wax ci man damay def attention ci li nga wax. Hmm. wax na ñaar ñaar moo am xam nga bu fekkoon daf ne wax naa ak Sonko téléphone. Hmm. wax naa ak Sonko téléphone. Hmm. xam nga mënu maa xam lu wax ci téléphone ba ñoom ñaar ñoo mën a génn ne lii lañ wax ci tell mais daf ne dem na kër Sonko mu ne weddiwu ma de. mais gaw ma. Hmm. ndax lu tax gaw ma mooy ñi ma doon wax ñi ma doon fenal ñoom ñoo ma waxal. Hmm. kon du ko gëm. léegi nag su Sonko hmm. génnee ne Idrissa Seck ñëw na fi. Idrissa Seck ñëw na fi dinaa gëm ne Idrissa ñëw na fi mais gëm naa ne Idrissa Seck léegi dem na fa ndax moom voilà waxoon naa leen su Idrissa Seck génne wala Sonko génne ne dem na fa dinaa gëm ne ne dem na fa. mais continue bi moom. Sonko rek moom ma ci mën a leeralal lu ma doy. ndax Idrissa Seck du wax lu ma gëm en tout cas